régime bii nekk fii en place donc di wax Sénégal yi rek nii dafa doy exemple mooy ñun suñu cas doy na exemple damay cité lu gàtt rek après ma ñëw ci détenu yi doy na exemple ñun suñu cas accusé nañ lu nekk ay milliards accusé nañu ay armes man personnellement kalachnikov sama biir sama biir sama biir sama biir sama biir nekk 45 milliards sama suufu lal ak lance roquette tey bu ñu demee tribunal ñu fekk ci man 25000 francs la ñu fekk ci man xaalis yu ndaw donc lépp état bi dafa yàgg ci lii dafa yàgg ci mooy def ay manigance pour jàpp ay prisonniers tëj leen politiquement donc loolu moo am lekkoon nañ fi 80 milliards ci lutte contre terrorisme waral nag il faut que ñu dem ci kanamu tubaab bi woo justifier ni am na ñoo xamante ne ñu ngi fii mu waral nag ñu war di jàpp di dugal tàmbale ci ñun mais ñu ngi ko doon wax ñu ngi doon alerter mooy du yem ci ñun du yem ci ñun mooy ni lay continuer day continuer tant que peuple bi ñu ngi seetaan mooy lii day continuer il faut que peuple bi loolu mooy waral suba nit bu gouvernement bu buggee jóg def ay ñaawteef dina xalaat ni ah ñii dañuy jóg suba mbooloo bu ñu boolee ñoom duñ ñu mënal dara mais fii ñu ngi tekkilikoo ñi jaar ni ñi jaar ni dañuy mënal dara mbooloo mënuñu xeex ak mbooloo loolu lan la may cité rek benn kaa bu ndaw mooy doy na doy na misaal doy na misaal encore mooy mooy seen yàqteef bu ñu def mooy lii ñuy jàpp may may masaw famille détenu yi famille détenu yi ñu jàpp nii lu ñu si biir ñu dañ ko dañ ko xam suñu parents yi dañ ko sibiir ba feebar su ma yaay bi ngi tëdd nii fu mu toll nii dem moo ko dese dem rek bu ma bi ma génnee ba léegi tëdd lay def mu ngi nii ba léegi donc ma wax leen ñoom tam ñu ngi subir la même bu ñu seetaanee suba ñeneen encore dañ koy subir ci leen injustice état boo xamante ne yooyu yaa ngi fi say propre ñi nekk sa propre ses propres ministres ses propres députés dañuy def ay injustice lu leen nañ ne fang doo ci wax dara doo jàpp ku def lu gën a tuuti li boo ko xaajoon ñeent juróom-ñaar boo ko xaajoon ku def lu toll nii nga jàpp parce que lan yow sa cause yow say say mbokk ngay jël yow ku dul sa mbokk bokkul donc loolu tam il faut qu'ils arrêtent non à la dictature président Macky Sall ñu wax ne arrêté na arrêté conséquences yi dama leen di wax buñ seetaan bii bu ñu koy continuer seetaan dama leen ci cité ñetti cas yu tuuti te gaaw benn waay bi ñuy wax euh, euh, benn malien la dañ ko jàpp indi ko fii comme nii ci lu gaaw dañ ko jàpp waa ji bu mu demee bu muy ñibbi fekk na tëj nañ ko fi 3 ans bu muy ñëw fekk na ñu takk jabaram fekk na benn ñu takk jabaram beneen jabar bi dem njëkk njabootam tas e mais e cas boobu lu ko waral mooy li injustice waaye dañ koo tëj ñoom ñu dem ko bu ñu koy bu ñu koy bàyyi may cap manuel ci prison bi ñu yolleeku nank bàyyi ko jëndee ko jox ko 5000 francs na paas yóbbu ko ba ci mbedd mi dajeeg ay ay ay xam nga seen lakk boobu ñu dem foofu ñu ne leen eh, dimbali leen kii dimbali leen ko mu mun a dem ñibbi dëkkam mais xoolal ma loolu injustice boobu benn nit kooku lenn la si le cas de Diané kooku tamit dañ ko jàpp fi ak bronze ñu ne bronze bi terroriste la parce que bronze bi bronze bi moom la ñuy defee étui mooy ay canon ay bombe ay ay ay ay ñu dem enquête ba gis ni loolu du ci dara waa ji dof na ci kaso bi maa ko doon def déchet ci kawam lépp fu muy def si si néegam la koy def mais waa ji euh, euh, euh, weer bu muy génn la bu ci topp ci la génn waa ji bu mu génn xamul fu muy dem parce que dof la mu ngi doon tëdd ci mbedd bi fii dañuy il fallait que ñu woo ñëw jël si ko mais pour lan injustice imam Sey mooy ñetteel bi mais lañ ko imam Sey professeur nekk Kédougou ñu cité ci ay programme yi affaire Charlie Hebdo ay mbir yi comme ni ngeen ni ngeen ko xamee ñu jàpp ko ci affaire bu ñàkk fayde moom tam xelam dem na am na njaboot bu bëri am ñaari soxna am doom yu bëri fu mu toll nii njaboot bi tas na soxna mu ngi résister am na soxna boo xam ne mu ngi foofu mais li mu ci bëgg a mooy fu mu toll nii mu ngi am problème bu sérieux donc a mooy sénégalais bu ñu seetaan bu ñu seetaan il faut que ñu adhérer mouvement yi ñu jóg taxaw pour lii mun a deñ parce que képp ku toog sa kër suba dina daal sa doom mu daal sa mbokk wala mu daal mu daal sa xarit donc noonu lay demee donc encore may wax ni mbokk yi nga xam ne ñoo fa nekk ñoom Abdou Karim Gueye ñoom Imam Diagne mais injustice bu leer nañ bu leer nga jàpp ay nit yóbbu leen génn nañu dox seen i soxla nga fekk leen seen kër génne leen encore yóbbu leen munoo wax ni ñu la leer ba pare nga bëgg leen fa bàyyi ba kañ mais waxal nga bàyyi leen nga bàyyi leen parce que bu mbir bi ba leen yóbboo doo am loo leen tëjee doo am loo leen tëjee kooku dafa leer nañ léegi damay encore mooy Euh, si kaw mooy détenu terroriste yi balaa mi daal ci dernier cas force spéciale yi dé détenu terroriste yi des na foofu une dizaine benn dix personnes yoo xam te ñu ngi fa mais dix personnes yooyu lan la ñu def ñun lu ñu tooñee loolu lañ leen bàyyi foofu ci kaso bi moo moo fa ne ba léegi-léegi seen waajur yi ñu ngi subir ñun def nañ fa ñi ay 6 ans ñi nangam ma bu ma génn ba léegi def na def naa fi 3 ans donc ñoom ñu ngi foofu ba léegi ñun ñu tëj leen 15 ans am na ñoo xamante ne ñu 5 mais ba kañ kon léegi lii dafay continuer ba kañ terroriste terroriste yow koo bëgg eh, a koo koo bëgg a koo bëgg sacrifier rek nga jënd force spéciale terroriste jàpp yóbbu tëj ci kaso bi donc damay wax ni encore lii sama sëñ bi di wax léegi-léegi di suñu gouvernement bi xamuñu nooyal déedéet lii la ñu xam loolu la ñu xam man bokk na ci lu ma génne ci kaso bi gannaaw yàlla mooy lii dama jaayante taxaw jaayante ak ñoom ma ne dañ ma fi ci injustice du ma ko seetaan dama yëngal kaso bi fële Cap Manuel yëngal foofu dirigé fi ay grève ñu jël ma indi ma camp pénal camp pénal bu ñu indi may ma leen jàmm ma ne na ba foofu ma leen mu ne kii ne ko ñaari ñaari ñaari mandat de dépôt bàyyi xam ne su ma génnee damay wax ma bëgg a ñëw génn ànd ak ñoom ñu téyeet ma encore ne ma da des parce que am na benn naar boo xam ne lépp nekk de c'était manigancé en fin de compte ñu woo ma jékki-jékki ma toog sama toog xool ci télé gis ñu ne ma bàyyi na la defoo dara mais loolu mooy lan mais Sénégal li mooy lan yow ngay sacrifier bakkanu nit ñi kaso mel ni ku yor euh, këyit xottu gerte di dugal di génnee donc cas bi dafa grave nit ñi foog ñu saisir seen bopp ñu toog xam ne kii il faut mu jóge fi te nañu préparer nag incha ci élection yi di ñëw sénégalais dañu kooku il faut dégager ce gouvernement de malheur ñu génne leen fi parce que li mënu continuer mënu continuer léegi nag donc euh, amoon na juste euh, ka imam ndaw tamit yàlla ko yàlla yërëm suñu imam di ko ñaanal bu baax a baax waaw ñun waaw waaw ñu lañ jàppandoon ah. ak imam ndaw lañ jàppandoon effectivement effectivement ka imam ndaw ñun ñoo bokkoon dossier en même temps yàlla def jàpp na ñu ñun génn nañu am na am na jeunes yu fa des mais imam lu mu li tax ñu jàpp ñeneen yi Abdou Karim mais imam da ko wax ñun dañ koo fekkee ñun du lu ñuy wax ay kii tiituñu dañ koo fekkee imam bu muy wax nii lu muy subir foofu dañ koo fekkee ñun ñu ngi foofu imam bu génnee ci cellule bi day ñax bay siit day siit yërëm yi da koy génne di ko wañ loolu lu ñu fekkee la lu ñu fekkee la du loo xamante ne tiituñu si ragaluñu si lu ñu fekkee la kon pourquoi léegi ay nit wax ko ñu joo jàpp ñenn bàyyi ñenn pourquoi donc il faut qu'ils arrêtent donc tey sacrifié nañu imam ay njabootam ñu ngi nii toog suba keneen day ñëw gannaaw suba keneen gannaaw suba keneen ma leeral rek ci gàttal encore balaa may daane balaa may tëj man mi di wax ak yéen yàlla ma dimbale encore sinon force spéciale yi ñuy wax ni man dama ci waroon bokk encore man dañ ma waroon jàpp Sénégal xam musuma ko wax fenn mu ko musuma ko wax fenn nag dama ne woon occasion la su ma toogee ci ci média incha allah dama koy wax parce que amu la ma ciy tiit jour bi ñuy jàpp force spéciale yi mu ngi ma fekk tali bu ma maa ngi dëkk si kap booba mu ngi ma fekk taal sama moto di dugg ci euh, di dugg sama koñ bu may dugg ci Bourguiba bi saveur bi ma gis circulation bloquée ma jël sama moto aj ko ci kaw trottoir bi di defar circulation ba pour lan parce que oto yi mënuñu dem ma gis gars di ñaan di di coow mënuñu dem ñu naan xamuñu ban heure la ñu yegg seen ma taxaw defar circulation jamono may defar circulation policier ñu ngi xeex ak booy ñu ngi doonte ay ñu ngi ba sur ba daal di fluide mu yoon bi normal mais à ma grande surprise sama beneen xarit ancien militaire mu ñëw tax ak man ñuy waxtaan am keneen ku ñëw suñu waa koñ ñu doon on était au nombre de six li ma j'ai des témoins li may wax ni ragul ma ci dara bu ñu taxee

cocktail mu ne ma waaw benn waay bi mu ne jegee mu ne non lii cocktail bo na ko sëñ bi du boisson ma kii ma wax ak moom ma ne ko lala ay cocktail mu ne toog mu ma waaw ma ne kon ay bomb nga mu ne ma waaw ma ne kon léegi lan nga bëgg dama leen bëgg a jox li pour que ñoom ñooy manigancé seen i ma leen wax nii ñoom ñooy manigancé seen i coup parce que lu lu koy firndeel waa bu mu paree bu mu paree bu mu xaar ah, ma daane balaa parce que avant balaa muy dem ma ne ko mais présenté vous s'il vous dama ko la ban audace nga am ñoo taxaw sama kanam indil ma lii ne dama koy jox pour mu xeex autorité lu tax yooyu yaakaar mu tiit léegi sama gars ne non bàyyi la koy dem ma ne ko noonu ay la dégage fii bu fi taxaw te jógeel fi yëpp xam nga mu dem bu mu demee yow ku yor saako bomb en pleine manifestation di nga koy yor nga gis kaaru autorité kaaru force de yaa ngi taxaw moom foofu la jubal bu mu paree jóge ci ñun ñu ngi koy xool di ko xool dañ ko doon topp ñu ngi taxaw di ko xool mu dem jubal dem ba dem côté ginnaaw maître bat foofu donc pour montrer que yow bu fekkoon loolu da nga ko yore bu fekkoonte ne manifestant nga da nga ñëw pour def loolu mais doo jege boor boobu yëpp mais fii force loolu ngi taxaw ñoo di def li muy def léegi am xoolal tey bu ma jëloon loolu tey su ma ko jëloon def benn erreur bu ndaw ñoom dañ may jàpp encore dugal la ci biir ne voilà encore force spéciale les was de Sonko ngi ne ak i nangam nangam fonk c'est notre état qui s'arrête non à la dictature nañu bàyyi caaxaan bi bàyyi doomu jàmbur bàyyi bakkani jàmbur yu ñuy foowee kase du caaxaan qui s'arrête donc loolu laa amoon lu may wax donc euh, ci gàttal donc euh, euh, ñu ngi woo mbokk jullit yi di woo sénégalais di woo chrétien di woo tout lu monde ñu ñëw rallier combat bi ñu ñëw fekkee manifestation bi ñu organisé ni samedi bi nii pour ñu mun a défendre bépp détenu bu nekk fii ci Sénégal maa leen di gërëm leen sant jërëjëf dañuy jox kàddu bi suñu